asalaamaaleykum mbokk murid yi ñu leen di siyaar baax tey joxaat ko ni wàccuwaayam di jiital si nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacké xalif général des Mourides si teg Serigne Amdi Modou Mende xalif général des Baye Fall seen mbokk taal bi la Moussa Seck Baye Fall maanaam tey nag ñu bëggoon leen ah, andil rek. li jëm suñ daar ji académie Zikroulah maanaam danoo créer li ñuy wax base de données base de recensement bokk maanaam nga xam ne képp ku bokk ci daar ji rek base boobu ci ngay inscrir ñu xam fi nga ni nga tudd fi nga dëkk kuy say way si say way ji yooyu bokk ci waaye danañ xam maanaam localité bi nga dëkk tous les informations nécessaires yi soxla ci suñu maanaam base bi nag li ko tax a jóg mooy <coughs> recenser membre académie yëpp képp fépp fu ak membre nekk rek maanaam ñu xam maximum d'information ci yow daal waaw waaye na comme comme mbir moom day toll foo xam ne day dem ba nekk lu universel moom mun naa version française bi coordinateur bi Mouhamadou Konté dina ko dugal incha allah ñu ngi wàcc foofu suñu kàddu yi bu vidéo bi jàllee daañu leen wan ni ni inscrire incha allah <clears throat> base de recensement nekk noonu da ngay cliquer nga xaar taaxeer la bu ñëw euh, bu ko taaxeer mu ñëw base de recensement académie Zikro la nga wàcc suuf nga xool dugal sa tur Moustapha Seck par exemple la rek man Moustapha Seck laa tudd voilà nga dugal sa date de naissance man xam naa dinaa xaw maska nag <laughs> ah, voilà nga dugal sa nii ñu koy bindee daal 26 03 nga def aada bi léegi nga wàcc suuf tamit nga xool góor wala jigéen nga tapé sexe masculin nga localité bi lii tamit lu si am solo la localité nga jox ñu sa numéro téléphone waaw man sa numéro téléphone moo nekk noonu ko amul loolu sax nga profité si am ci dugal sa adresse email waaw adresse email moom it lu am solo la. jéem koo créer daal Seck Baye Fall voilà 152 arobase gmail nga dugg euh, ci dernier lien bi arobase ah, gmail point com soo paree nga dugg ci dernier lien bi dernier lien bi moo nekk noonu voilà boo paree si euh, premier lien bi dalay wan voilà ne nga abonné suñu canal telegram boo xam nga ñëw yégali sa inscription boo yég ñëwee yégal sa inscription voilà nga ñëw voilà deuxième lien bi moom pour nga abonné suñu chaîne YouTube la voilà boo duggee nii boo abonné wutoon da gis ne abonné da war a abonné nga abonné voilà boo comme que lépp nga vérifié ba xam juuma wala déet nga bés wii voilà nga bés wii dugg